action bi ginnaw yalla bu amé té dañ ko santé wa Rotary Club lu mar ñaari wër ci ginnaw ñëwoon nañ fi pour may population ay moustiquaires imprégné bien que wul won mais am na ñenn ñoo xamni jot nañ ci am amna kenn ci ñoom bu mu ñëw yaramam daw torop mu ne mom yaakaaron na ci adina amul ay doomu aadama yu dund ci condition ci cëriñ surtout ñu ak dex bi mu ne ma vraiment man xaw ma yëmbal aw ma sax mbokk yëmbal mais bu soobee yàlla su ma ko yàlla mën loo dinaa def benn geste boo xam ne pour ñu ñëw si kii moo doon seen tànk yi tey kon boog ñu gërëm bu baax waa Rotary Club bii du seen action bu njëkk yëmbal danañ yëngal bu baax yëmbal noor foofu am nañ fa ay acide yu bari puisard ak yu beneen ak yeneen yoo xam ne Rotary def na ko ba école bi nga xam ne maa koy diriger nekk fa directeur Rotary Club grâce au Rotary motax ñu tam am R plus 1 boo xam dañuy jël ñetti téeméeri xalé kenn ci journaliste yi taxaw fi amna kenn ko xamni fofu la amé entrée en e té fay bi participation rek la mais acteur communautaire lañu ñu lépp loo xam suñu population soxla nañ ko dañ ci taxaw ba mu mot sëkk fu ñu gis koo xam tam mën na am njëriñ pour population lañ ko fi indi. waa Rotary bi ñu fiy ñëw. Euh, dañuy jaar par la voie de canal euh, Massata ak district sanitaire bu yëmbal mais bi ñu ñëwee fii euh, tànn cinq quartiers yoo xamante ni moom la ñu waroon a distribuer ay moustiquaires imprégnés bi ñu ñëwee fii gisaale nañ ne ah yëmbal sud kat am na quartier boo xamante ni mi ngi tudd Cëriñ 2 war nañ fa demaat jàppale leen ci ban cadre lañ leen di jàppale lu jëm ci ay détergent loo xamante ni mi ngi jëm ci lu ñuy raxasoo. wala loo xamante ni ñi ngi koy moytoo lépp loo xamante ne lu jëm ci microbe la. situation bi nag li ko waral mooy inondation bi nga xamante ni moom moo causé li nga xamante ni mooy tifa bi am fii ak yi fa nekk nga xamante ni amul lenn lu fiy génne loo xam luy jariñ askan la mais contrairement loo xamante ni moom moo ñuy sonal la muy microbe di leneen li ñu indi tey joxe ko fii ah muy une valeur de 500000 francs ñi ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm. di leen wax nag ne lu tax euh, li ñu ñu ñenn ñi yëg ko ñenn ñi yëguñu ko mooy lépp loo xamante ni euh, lu ñuy joxe la rek am na cible moo xamante ni moom la ciblé cible boobu mu ciblé nag ñooñu ñoom ñooy les concernés ñooñu ñoo ko moom parce que dafa am ñoo xamante ni ñoo sës rëkk ci ndox mi ñooñu sës rëkk ci ndox mi nag di vivre conséquences yi fi nekk di noyyi xet gu bon gi di gis ndox yu bon yi di gis loolu yëpp ñooñu ñooy bénéficiaire lii ñu fi indi tey. waxaat nag li ngeen wax sànq ci environnement muy lu jëm ci assainissement kër yi fii ngay gis yëpp yu ci bari amuñu ay puisards yoo xamante ni yu ñuy mën a def puisard d'eau la yoo xamante ni ONAS amoon na yu ñu may ñenn ñi ñoo am ñenn ñi amuñu aussi comme noonu ñu leen di tàllalaat loxo ci loolu rek bu mënee nekk euh, ñi ngi leen di xaar ci loolu ngir gën ñu ci dimbali ba environnement bi ñu nekk xale yi ñu am fii mooy seen piscine fii mooy seen stade mooy seen lépp seen activité communautaire yëpp fii lañ koy defee te buñ fi dee tour ndox yu bon yi day def day am ay microbe te bu boobaa aussi du ah, du du da leen di impacter impacter famille yi. ñun Rotary nag association la boo xam ne nii association internationale la donc dañuy jóg di jàppale njaboot yi ñoo xam ne ni kii seen loxo yeggul seen ginnaaw donc moo tax tey tey mooy suñu ñaareelu jaar-jaar. donc en deux mois ñu ñëkkoon nañ fi ñëw pour joxe ay moustiquaire et par leur demande ñu naat dañ fi jaaxaat tey jox leen li ngeen gis ni ci camion bi mooy produit maanaam moom eau javel omo ay paan tout ça loo xam ne ni ki mën na jàppale comme ni ko soxna si waxee madame Ndiaye jigéen ñoo xam ne ni ki ñoo gën di sës ci inondation bi parce que effectivement mënuñu jox ñëpp n'est-ce pas mais le fait que déjà ñu andi loo xam ne ni listel nañ ñu ko ñu war ko mën a andi foog naa ni jàmm ak xewel la mhm. donc euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant n'est-ce pas te bu sobé yalla li ngeen ñu wax yépp suma ma en tant que kilifa Rotary Dakar Millennium dina ko jotali samay morom bu boobaa dinañu xol effectivement lo xamné ni ki fi ba ay fan di ngeen ñu déggaat voilà donc toi ma leen di gërëm di leen sant ndimbal bi ñu indi tay am na loolu wax dëgg yalla ndax ci mbalit bi lañu def ko guddi ak bëccëg weñ yi bari yoy yi bari lu lu lu lu day ràmba dugg ci kër yi muus yi itam yëpp bari nañ muus yi ak xaj yi yëpp fii la ñuy jur lu ci lu ci am rek ci kër yi la dugg te loolu yëpp am nga day loraate waaw kon nag bu ngeen indee loolu dañ leen di sant rek di leen gërëm yéen itam di leen ñaanal jàmm yàlla na leen yàlla